nduy waaw mu wuñu de nduy waaw nduy bu ko gàmmul rek nduy plateau bii plateau bii. waaw diine daf ci am wàll. waaw am na ci wàll kenn mënu ko fee. loolu téléspectateur yi sax ko réclamé. yow bu ma jaxase man Ndoye Bane mu Cheikh Bassirou <laughs> Abdoul Khadre. voilà d'accord. jërëjëf Oustaz bu fekkee da ngaa sopp Cheikh Bassirou Abdoul Khadre kenn fexeel ba. waaw lu ñuy wax ci diine ji amoo loo ciy diine yow ci dara yow. nel tekk déglu. waaw jërëjëf yaa ngi dégg. waaw mais mënu ma man saa yu waxee rek ah. nga naaw. bu ko mais ah. bu ko gàmmu. Eh. wi leen ma direct lañ ne de. waaw direct la waaw ah. chaque jour nag lii laay dund nag ah, direct lañ ne. Ah, jërëjëf oustaz ñu ngi lay remercier ci leeral yi nga indi xam naa ne dinañ ñëwaat ci yow ci kanam. ku tedd gi def. alors euh, soxna si moom loolu euh, moom dama bëggoon ñëw ñu dugg un peu ci euh, wàllum famille. buñ ne famille yaay papa jëkkër jabar mag rak donc lépp ngi ci biir. Mhm. alors tey dañu gis am na du ñëpp nag waxuñu ñëpp waaye am na ci ñoo xamante ne. Euh, xëy na je pense que comme ni ñuy waxee yaay kenn amul fayam. Mhm. yaay moom defe naa ne ci kaw lañ ko war a teg moom mooy ren dee ren. Mhm. donc loolu je pense que kenn dootu ko werante waaye dañuy gis ci ñenn ñi xëy na euh, foofu xëy na ingratitude day dugg. Mhm. mooy que nga am sa jabar xëy na nga jël lépp féetale ko ko ba fàtte sa yaay lépp lu nga xamante ne waroon nga ko defal sa yaay yow daal sa yaay. faale woo ko lijjanti woo ko mhm. euh, xamoo ne sax amaana mu ngi dund mhm. nga jël sa yabar yéegal ci kaw mhm. teg ko ci sa kaw loolu ku koy def soo dee footballeur nga équipe booy football mooy jël ndaare <laughs> waykat yaa ji gën a dellu ginnaaw fekkee waykat nga journaliste nga yow su loo wax journal kenn du ko dégg yaay mooy nim ndombo wan ci commencement ba mooy fin ba ku ci nekk nag dafa am place kooku est mën nañ ko ne dafa ingrat. dafa bien sûr. sa yaay ëmb la juróom-ñeenti weer. wusil la di la nàmpal ngay ngay ngay ngay tuur dugub muy raxas ngay tuur ndox muy raxas. di la tette ba nga nekk. nga jël sa jabar teg ci kawam nga dem ba ba ba jig wala wala loo mën sa sa yaay mënoon a judd mu la nga dee. nga mënoon a toog oto yi maanaam lu nekk mënoon la daal bi nga nekk xale sa yaay dindi yooyu yëpp tette la ba nga nekk magum jëmm nit gis la bëgg la tey ji xoola difficulté bi nekk ci soo duggee école ba di ngay amee bac soo amee bac am na ñoo xam seen yaa waajuru góor dafa bàyyi wàccu liggéey mm-hmm. bàyyi ko bàyyi bàyyi fi njaboot yaay ji jaay caaf ji jaay lu nekk pour nga am kaye la mm-hmm. yaay jooju nga dem jënde kook jigéen mm. di nga saxaar waaye doo tànk mm-hmm. billaahi di nga di nga di nga di ngay doxal nga gis affaire yi mel ni luy neex nga waa nga waa sa jabar ji am na ñoo xam ne dañoo bàyyi seen yaay ca dëkk ba ñëw fii ndakaaru toog fi wan seen ginnaaw euh, seen seen tabaski ba tabas la ñuy gis seen yaay wala seen papa am na ci ñoo xam si seen papa gaañoo wala seen yaay gaañoo fii lañ koy dëjalee ndax defaluñu seen baay dara defaluñu seen yaay dara te mhm. dëkkuñu ci dëkk bi loolu manque de reconnaissance xanaa xamu ne problème mu Sénégal gi ba gars yi dañuy wax naan ay état bu ñëw état du affaire état de suñu biir kër yee xumb <laughs> suñu biir kër Sénégal biir kër yi tout le temps ma wax ko biir kër yi dafa xumb trop mhm. manque de reconnaissance bi am ci biir kër yi moodu moodu yaa ngi dee mhm. ñooy jënd ay saaku ceeb te duñ ca ñam tabax kër te duñ ca fanaan takk jabar du ko ca yor ca yaay yor ca papa yor ca ay frère te ñu ñooña ñuy defal loolu amuñu benn reconnaissance mm. lu bon lu ñu dégg ñoom lañ koy wax di leen liggéey di leen def yu bon su seen bàyyi deewee nag des fois dafa am kër yoo xam su sa bàyyi dee ba ñu war a miraas miraas ma foofu ngay gis ay musiba mhm. musiba yu gën tribunal demal ay bon ñuy bokk ndey ak bàyyi ñoo fay nekk di ko ci kër di ay nit ci kaso mhm. Sénégal dafay nekk am du miraas séddoo la dañuy séddoo te miraas histoire dina ci miraas ak séddoo mhm. du benn di defante yu bon a bon yu bon yooyu ñuy defante ci biir kër yi moo génn ci mbedd mi génn ci ëtt bi dugg ci entreprise dugg ci ministère yi dugg partout defante yu bon yooyu. ci ko de milieu professionnel manque de reconnaissance bi gën a garaaw nag mooy seen mhm. <laughs> <laughs> a tëj. yow nit mën naa nekk mhm. am Sénégal di ñibbi Sénégal nga naan war loolu. dafa ne koo xam ne euh, dëkk bi état bi moo dëkk bee la fayal nga jàng. voilà yóbbu la ba tey li nga am. yëpp yaa fayal yaa ngi tooñ. ndax maa bëgg yaa ngi tooñ. jërëjëf jërëjëf Ndoye nañ ñëwaat ci yow Pendo Alima maa ngi ñëw c'est question bi daf may intéresé ci ci ci Modou parce que xam nga moom dafa xaw a spécial tuuti voilà mm. alors Modou même question bi ma posé Ndoye laay indi ci yow mooy maanaam euh, jël sa jabar teg ci sa kaw yaay lépp lu nga xamante ne rek yow daal am nga ko ci lu fàtte nga sa yaay yow sa jabar daal nga jël aj ko ci kaw di ko nebb nebbal di ko chouchouté di ko lii fekk ni amaana xëy na sa yaay comme dooy li muy wax ba muy metti moom la ba ngay def yëf yi moom la lépp daal moom la bi muy metti moo fi nekkoon tey xëy na mu neex nga teg ko de côté jël beneen jigéen yéegal ci kaw ah mais ça dépend ci nit ki aussi maanaam dafa am ñoo xam ni dañu faible nit ñi bokkuñu nit